maintenant affaire PDS bi ngay wax noonu mais man PDS je porte peu d'intérêt au PDS à son fonctionnement et à sa situation actuelle. PDS bi tax mu nekk tey. oui bi tax ma parce que nekkatuma fa dañ maa dàq man li ma gënoon a bëgg ci ci li ma gën a bëgg. moo doon PDS ki ma gën a bëgg mooy Ablaye Wade ak jabaram ak doomam. noo koy bëggee démb tey nga bëgg ko mais dàq mais suñu la dàqee ci dara da ngay. xanaa la dàq ñoru la woon wala dàq bi daf la arrangé woon. parce que ñu bëri ñu bëri ñu bëri dañu doon njort ni PDS bi fa président Macky Sall génnee ba nekk président de la République dafa doon sant nit ay nit ay mission. te mission boobu c'était quoi. ñoom ñu bëri ci ñoom. xoolal mën naa ko juré ci alxuraan je n'ai jamais entendu de relation ak Macky wala ko bokk ci Macky Sall bi ma nekkee dans le PD jamais man ma dama dama am une ligne de conduite. kon daa génn ma gis Benno mais tu me toujours chaque fois que ma ma wax loo xam ne ma bu ma ma gis loo dama ko war a wax mais dama koy wax pour ñu dégg ma ñoo xam nañ ko yow dégg dooy dégg ma ne man gaa ma loo ci am may leen une grande fierté may leen man maa nekkoon ennemi numéro un parce que ku bañ Ablaye nag maa bañ kuy xeex Ablaye dama doon xeex. ku xeex ka ne dama noo xeex kuy xeex mën a waat di ma xeex ñu dem ba ba Senghor ma bokk conférence des leaders Macky président Macky Sall président Moustapha Niass Idrissa Seck. ñooñu ñëpp ay appareil politique la ñu. ay parti ay parti la ñu yor jëmoo ko foofu. waaw ñoom ñëpp nga xam ne dañoo jàkkaarloo di xeex. ñu dem ba ñu nekk benn su ñuy wax dara laaj ma far ba ma wax sama xalaat ñu wax ma leen ànduma ci loolu ci lii laa ànd. dama leen ne loolu loolu d'abord personnellement man c'est une fierté donc bu yaakaar ne alors man je suis je suis dama dem foofu ah rek uniquement parce que je suis la le PDS non j'y j'y parce que dama am lu ma gëm et li ma gëm moom laay continuer de réaffirmer ba léegi mhm. waaw et je me entendre et le candidat